fi euh, suñum euh, réew euh, gis nga sa professeur si mun naa ne yow bokkoon nga ci acteur direct yi nga xam ne impliqué woon leen ci élection législative yi ñu weesu yaa ngi bokkoon <coughs> ci voilà les serviteurs bu Pape Djibril Fall qu'est-ce qui a justifié ce choix waaw foofu dinaa ci ñëw mais nga may ma rek ma bouleverser un peu l'ordre des questions en bon philosophe. d'accord parce que y a quelque chose qui me tient à cœur parce que affaire Pape Djibril Fall j'en ai tant parlé. <laughs> et dama bëgg eh, adresser une lettre orale ak Ousmane Sonko. laa mm. bëgg a waxal. dinañ si ñëw. waaw non bàyyi ma ma wax rek. <laughs> waaw d'accord. xam nga eh, si cumul des fonctions yi. Mm-hmm. Ousmane Sonko. président du PASTEF moom laa bëgg mu xam ni gis nga bokkuma PASTEF nag. li Abdou doon wax naan ku def lu rëy am lu rëy moom loolu na ko jël mu dund ko. li ma ko bëgg a wax moom Ousmane ko président du PASTEF et tous les cadres du PASTEF. monsieur sare le directeur de l'école. Mhm. monsieur Tall je crois que mooy seen porte-parole. dama leen di bëgg a wax ne. cumul des fonctions. nañu ko xeex bañ ko. gis nga seen ñaari député maire yi bu mu leen jaral l'avenir de leur parti parce que rien ak acquis si on pense que la victoire en 2024 est acquise dañuy nax seen bopp. gis nga ñoom seen bopp dañ ko wax maître Tall wax na ko à la télévision te ñoom. ñooñu dañuy démissionné soit de leur poste de député soit de leur post de leur maire te loolu moom mooy yoon. gis nga loolu bu ñu ko defee man yaakaar naa ne histoire du Sénégal waxuma ni amut mais bëriwu fi wala man gisuma fi quelqu'un qui a évité ce cumul. mais est-ce que mënuñoo xaar aussi euh, professeur euh, la réalité politique aussi rattrapé leen parce que gisoon nañ aussi euh, le leur président Ousmane Sonko moo fi waxoon ne carrément du duggalante avec les gens du système finalement mun nañu wax nekk euh, ñi nga xam ne moom la doon xalab démb fu mu toll nii euh, ñoo nekk ñi nga xam ne ay alliés leen donc euh, du coup la politique aussi a ses réalités professionnelles. merci madame gis nga nag bu fekkee la politique a ses réalités. Mhm. nañu nangul Macky li muy def. Mhm. kon Ablaye Wade ba ko la réalité politique dajee en 2012 lu tax ñu xeex ko nañu ko fi bàyyi. La réalité politique ne peut jamais être au-dessus de l'éthique. Je parle d'éthique, je parle pas de stratégie politique. Mhm. Je ne parle pas de la réalité politique. damay wax ci diggante nit ak kàddoom di wax ak sénégalais yi may ma eggali tuuti rek di leen wax ne leen benn dëkk benn nit nekk fi ministre nekk fi maire mhm. am ñaari salaire ah. am ñaari oto am ñaari bureau benn nit nekk fi député nekk fi maire yéen jeunes sénégalais yi ngeen nekk fi di chômer ñeneen ñi nga xam ne nii ñu ngi ci biir parti bi ñu jël benn nit jox ko ñaari nombo parti ñaari nombo ñeneen ñi amuñ benn nombo loolu nañu ko bañ damay wax ni ma eggali li ma doon wax ci waa Pastef xam nga lu tax ma koy wax waa Pastef mm-hmm. parce que waa Pastef Ousmane ko tey man duma nit bu iñaan bokkuma maak l'avocat bi jaabal bi nga xam ne nii dafay wër télé yi di xeex Ousmane Sonko parce que li Ousmane Sonko am moom amu ko yàlla mooy maye Ousmane Sonko turam fa mu yegg il deux ans trois ans xa amu géntul woon ne dinañ ko mos a xam. Mhm. gis nga yàlla ku mu yenn ku ko bëgg a yenn da ngay sonn waaye yàlla ku mu tàcc aussi feccoo dootoo mos a fecc Youssou Ndour moo ko wax ce cas de cumul le principe ñoom dañ ko défendre. Ousmane Sonko ci boppam j'ai discuté je vous dis bi may ñëw avec des intellectuels du PASTEF moom ci boppam dafa bañoon ñu investir ko ñu ne même buñ ko investir woon ci liste national ba su nekkee député après dafay démissionner gis nga la révolution des mentalités le renouveau le véritable soppi mënatul nekk ay wax dafay nekk un comportement je demande au cadre du PASTEF Je demande aux jeune du PASTEF, je demande à tous les intellectuels de ce pays, au nom de la démocratie, au nom de l'équilibre, au nom de la justice sociale, bu ñu nangu cumul des fonctions. gis nga le PASTEF bu ñu jëlee cumul des fonctions bi wax ko ba mu jàll ils vont perdre beaucoup d'électorat parce que nit ñi kenn moomu leen Ousmane Sonko moomul nit ñi Barthélémy Dias moomul nit ñi man moomuñu nit ñi Sénégalais yi dafa am ñoo xam ne dëgg ñoom moo leen moom Macky Sall li tax ñu woon ko gannaaw tey parce que dañoo dem. ba gis ni la mu doon wax du ko def Ousmane ko amul lu Macky Sall am ci mbindeef ci dëgg rek lañ ko jàppee ba fi ñu toll nii. Mhm. kon chers amis arrêtez la cumul. dinaa envoyé aussi benn message amoon na mon ami ay dara c'est vrai parce que wax naa ko keroog ci Ndoumbelane ñu dugal ma ci groupe bam ba saaga ma ci ba ma tooy xep mais dama ko boo wax ne ko xam nga Ahmed Aïdara tax ma koy envoyé message uh-huh. parce que uh-huh. uh-huh. dem naa këram ñaari yoon waxal ko dem naa ay ndajeem ñaari yoon waxal ko soxlawuma ci moom dara investiruma kon lan moo tax ma ko doon def koo soxlawul dërëm investiroo ko foofu iñaan amu fi monsieur le maire de Guédiawaye gis nga soo dégloo sa seen cours ñooñu wër la tu regretteras beaucoup de choses. Démissionner et aider les Sénégalais à aller vers une ère démocratique qui est dans ce pays. Mais gis nga que vous avez Mom, de toute façon, il l'a clairement dit, de nena mom nekul bir pastef. Cette ouais. Ah. question n'a pas été discutée au sein ouais, de non, non, man, non, man, bien na tu vois mais je parle à tout le monde. <laughs> je parle à tout le monde parce que Réumi, wa pastef mom ko dañ fay am wal rek. La même chose, je le dis à Barthélemy di woté révolution ba pare di woote cumul de fonction xam nga cumul de fonction lan moo tax mu bon mhm. ñaari élément d'abord l'unificacité dinaa la jox document bi l'association des maire du Sénégal mhm. ba ca Alioune Sall nekkee ñoom ñoo dajaloo ñu ne la majorité des maires qui son des députés mhm. ils ne jamais dans leur commune ils sont toujours à Dakar lii nag mënuñu ko bañal kii kii ñu nangul ko fii gis nga ñi nga xam ne nii ñu ngi bëgg a garder seen commune na leen sénégalais yi jàppee comme ay nit ñoo xam ne seen bopp lañ fi nekkal seen i intérêt la donc le combat de cumuls man loolu mooy suma combat et je passerai toute ma vie à combattre ça parce que du yoon parce que dafay indi inefficacité ngarale baaxul mhm. xotteeku ci boppam moo wóorut mhm. beneen bi mooy Cheikh Hamidou Kane dafay wax mu ne le développement de pays ne se mesure pas en fonction de la masse mais de la richesse lan mooy ndey benn nit boo xam ne d'ailleurs xëy na amul jàng ma ba war wala amul jot ba war nga jox ko ministre jox ko député soo ko waxee ñu ne da ngaa iñaan mhm. foofu lañ toll les petits esprits discutent des petites choses les grands esprits discutent de principes. Euh, on est d'accord professeur surtout euh, suñu ay euh, dëkk yi nga xam ne mun nañu wax ne koom bi dafay sookal lool ak tamit li nga xam ne moo nekk euh, xëyu ndaw yi mais professeur il faut aussi noter poste yooyu la lii di député ak li nga xam ne mooy poste maire. c'est des post yoo xam ne da leen di ngir ñu gën a mën a am seen ay base politique donc mm-hmm. benn parti bu mel ni comme PASTEF aussi tey est-ce que aussi loolu du ko rattraper parce que ñoom euh, euh, certes mun nañu wax ne fu mu toll nii. non no ils sont une réalité politique leen no Sénégal non non PASTEF non non PASTEF loolu mënu ko rattraper déedéet xam nga lu tax ah mënu ko rattraper déedéet déedéet Ousmane ko hmm. li ko yàlla may nii bi ñu ko koy may dafa nekkoon député maire hmm, hmm. bi muy génn di dem nit ñi di ko topp dafa nekk député maire boo duggee ci Facebook bi foo dem tey nit ñi di nokkee Ousmane Sonko ñu bëri tey ci Sénégal gi nokkee Ousmane Sonko. mais fooy Facebook euh, c'est pas waxuma Facebook mais gis nañ ko mais gis nañ ko mais gis nañ ko mu génn ay nit topp ko tout le monde c'est comme ça. d'ailleurs tey beaucoup de personnes sont des députés et des maires à cause de Ousmane hmm, loolu kenn werante ko ñëpp xam nañ ko. am na ñoo xam ne bu doon ñoom rek du ñu mës a dégg monsieur le maire wala monsieur le député kon ay base politique. munoo koo am ci cumul munoo koo am ci injustice moi je ne partage pas ce raisonnement le cumul est une maladie si la démocratie a une peau cette peau a une plaie et cette plaie elle s'appelle le cumul des fonctions professeur Sanusi Ba loolu bravo